quoi baax na trop pour que couvre-feu bi mu mu pousse ko jusqu'à zéro heure mais vraiment bu ko mënoon a dindi complètement moo ñu gën a. mu doon mbégte ak soulagement ci population bi ginnaaw bi président Macky Sall xam leen ni couvre-feu bi da koy daal di wàññi population yi nag gis nañ ni fu mu toll nii seen activité day xel di wéy te dara du ko gàllankoor. mangoog euh, Moussa Sène ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi ci noonee ñu jukkil leen xeetu yéene kay la ca fës ci journaux yi tey ñu fas yéene ko doo Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal euh, kujje politique bi ba léegi ngooy na ci seen pression ga ñu teg ci euh, nguur gi bokk na ci ne xel xalaatul ñu deltu ginnaaw euh, bu ñu sukkandikoo ci kuréel gu ñu duppee M2D di kuréel gi jóg ngir sàmm démocratie bu Sénégal fas yéene amal doxum ñaxtu ni ki samedi gi ñu jëm ngir fexe ba otage politique yi nañ ci teg loxo ci dossier Ousmane Sonko ñooñee ñu may leen afiya ñu delluwaat seen kër soxal mooy ajjuma ji ñu jëm mu doon deuil national maanaam ñaanal woy dawlu yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ci fitna yi woon euh, fan yi ci euh, ndakaaru euh, bokk na ci li tukkee ci mbirum Sonko ak njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci ndax lay jeex lay doon ñi seen xam-xam màcc jëm ci doxalinu politique beeg la ca jot a xew jot nañoo soññ ñaax nañu njiitu réew mi Macky Sall APR ak Pastef seen xeex ba nag tàbbi na ci réseaux sociaux yi ña ngi fay fekkante lu mel ni xeme mu ngi ci Walf Quotidien yéen a bi di les échos ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy tegtal euh, borom salon de massage bi di euh, Sweet euh, Beauté Ndeye Khady Ndiaye mañu ñu ne wóoluwaat nañ ko foofee ca maanaam premier cabinet ba bokk na ci juge bu huitième cabinet jotoon na ko déglu waaye nag lu jëm ci xootal déglu baak enquête ba tax nu wóoluwaat ko maître Ousseynou Gaye di avocat Ndeye Khady Ndiaye gis ne du dem du fa teg tànkam mu ngi ci les échos les échos yi tamit ajjuma ji nga xamante ne ajjuma tiis lay doon ñaanal way dawlu yi euh, bokk na ci samedi gi ñu amal ndaje mu yaatu ci euh, Ndakaaru Les Échos ne euh, njeexital gi am ci dossier Ousmane Sonko maire bu Sindian ak première vice-présidente bu conseil départemental bu Bignona tekki nañu seen ndombol tànk ci APR réew mi quotidien des ci réew mi ak dakaar mi ñu ne ak na mu bindoo fan yi ñu weesu bokk na ci deuil national la ñu fas yéene amal ni ki ak ajjuma ji ñu jëm ngir ñaanal way dawlu yi ci ñàkk seen euh, bakkan euh, bokk na ci tamit li xew ci dossier Ousmane Sonko euh, jur na jafe-jafe ci koomu pour réew mi xaw na fee sooxe lool mu ngi ci réew mi quotidien yéen kabi di Sud Quotidien ne daañu ubbi enquête indépendante gu mucc ayib jëm ci li fi jot a xew ak ñañu bunduxatal yàq seen alal tamit faat ay bakkan Euh, société civile bi fas yéene ca béy waaram euh, bokk na ci Seydi Gassama bu Amnesty International sàkku ci sàkku loole euh, Sadikh Niass bu rado bu ci Ababacar Fall bu GRADEC ñoom ñëpp kaddu gi benn la nañ ci amal enquête indépendante mu ngi ci Sud Quotidien yéen a critique mu ngi ñuy dégtal. Eh, kaddu yu tukkee ci njiital eh, forum civil Birahim Seck eh, mi xam la ne woote gi gars yi woote nit ki samedi gi ñu jëm ne amul njëriñ ndax jéego am na ba dal amandina ci réew mi bu ñu sañoon dal googu lépp ñaxtoo ko ndaje ñu dakkal ko bakko ba jëmmi jamono noonee la ko Birahim Seck bu forum civil xamle ci biir yéene kabi di critique yéen a bi di la mandat ne gannaaw fitna gi fi jolli fan yi ci réew mi ah, dal amati amandina waaye nag dal googee ndax dina wéyam déet yéen a bi xëy di laaj ndax am na ñu tàmbale yëglu ne samedi gi di mouvement de euh, de ne daañu wàcc ci mbedd mi sàkku yi tamit ñañu euh, tëj kaso ci anam yu dëppoo ak yoon ndax politique ñooñee ñu may leen afia yéen kabi di le mandat taxaw ci euh, googu lépp euh, mbir yéen kabi di mu ngi ñuy enquêtal euh, waa ji nga xamante ne mooy capitaine Touré mi tekki ndombol tànkam ci gendarmerie yàggut moom capitaine Touré ma ñu ne dootul yàgg dañ ko teg loxo bokk na ci ci xibaar ñu taataan ci biir yéen kabi di enquête la waraloon mu tekki ndombol tànkam moom capitaine Omar Touré. Eh, ma ngi cey wax eh, toog na itamit lu tollook juróom benn fan yoo xamante ne eh, kenn gisu ko ñaanul itamit permission bokk na ci tamit gendarmerie faw nga def fukki at yoo xamante ne balaa ngay mun a démissionner faw nga def fukki at ci gendarmerie noonu la ko yéene kabi di enquête fësale di quotidien ci xëtam bu njëkk njiit réew Macky Sall xëy fësal njuree fi tukkee ci fitna gi woon ci Ndakaaru eh, jur na nag jafe-jafe ci APR ndax tàmbale naa xar ñaar am na ci ay jegeñaale njiit réew Macky Sall eh, tàmbale nañu ba parti bi eh, docteur Gnima Goudiaby tekki na ndombol tànkam ci li nga xamante ne mooy APR gamu bokkoon bokk na ci tamit mbër yi kontaan ñu benn woon ci maître Malick sar jaru ngi ñu denk wàllub yoon mi xam ne yëngu-yëngu yi am fii fan yi ci Ndakaaru du kenn ku dul mbër yi nga xamante ne toog nañu ab diir te bëriwuñu ndax coronavirus bi eh, Gris Bordeaux ak ñamu àndal merci lool ba tax na dàq ba eh, kalaame ci yoon jër ngu ñu dénk wàllub eh, yoon yéen kaabi di Le Quotidien mbirum Ousmane Sonko yéen kaabi ne dund gi dooraat na gannaaw bakkan yi fi rot Euh, ndax lu toll ci fukki bakkan rot nañu ci fitna yooyu le lu ëpp juróom wala boog lu jege juróom benn téeméeri doom aadama damay ci jëlee gaañu gaañu euh, kuréel gi euh, jóg itamit ngir sàmm démocratie di mouvement M2D fas yéene wutali place de l'Obélisque niki samdi gi ñu jëm ca Kër Massar moom musiba am fa ñeenti soxna yañ fa violé maanaam la ñu sàkku ci lu dul seen coobare seen coobare foofe ci ab hôtel ga fa ne jëriñ gi ñu dénk tamit Euh, wàllub yoon maître Malick Sall ne na mu waxee euh, noonee la askan wi gisee wuñu euh, mu ngi ci le quotidien 24 heures ci xëtam bu njëkk fitna gi fi woon ak la mu jur ca Bignona Euh, tax na docteur Ndeye euh, Goudiaby moom euh, daanaka bana APR démissionné nag ca coalition Benno Bokk Yaakaar démissionné yi tamit ca conseil départemental bu Bignona démissionné yi tamit ci cadre républicain yu parti njiitu réew mi Macky Sall soxna si ne am na góomu xol ci li xew bakkan yi rot nañu bunduxatal nañu askan wi noonu la ko waxee ci biir yéen a bi di 24 heures Mamadou Lamine Diallo wax na i tamit ci tolluwaay réew mi gis ne njiitu réew Macky Sall ak nguuram dañoo laaj. Euh, ci euh, li war a suqali réewum Sénégal laas ci xëtam bu njëkk xëy naa fësal kilifa diine yi ñu ci seen nataalu euh, xalif général des mourides de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yéen cabinet kilifa diine yi ak société civile ak kilifa aada ñoom béy nañu waar wu yaatu ci réew mi ba jàmm newaat ñooy ci réew mi kenn ku nekk dox na ci tànk jàmm bu ñu sukkandikoo ci Alioune Tine mi ci addu ci biir yéen cabinet ba tax na Birame Seck bu forum civil gis ne ndaje mi ñu war a amal niki samedi bi jaratu ko woon ndax eh, jàmm dikkaat na nañu fexe ba sowee jàmm ju ñu am ni ci jamono ji mu ngi ci biir yéene kaabi di laas yéen a di source mu ngi ñuy lu toll ci ñaari téeméer yu toftal ñeenti eh, migrant ñoo xamante ne ay sénégalais lañu bàyyi bàyyi woon fii eh, ci réew mi jëm ca Espagne ñooñu nag daañu daañ leen delloo si waat Eh, ci eh, réew mi li laxasu nag ci seen delloosiwaat googe source a xëy na ko jiqi leneen itamit eh, lu doy am ca Saint-Louis yéen ak ab gune gu ndaw ci magasin ya ñu joto dajj ca Saint-Louis fala fa benn ab canette d'alcool canetu sàngara foog ne daanaka lu ñu war a naan la yëf ya mu naan ca nag naan ca lu ëpp ba xàmmeetul Euh, jant sow naam euh, déet mu ngi ci source a euh, ci xëtam bu njëkk yenn a bi di le témoin mu ngi ñuy dégtal yi tamit lu aju ci li laxasu ci cortège yu Ousmane Sonko ma ñu jotoon a tagga tembel ca Mermoz la ca aju yëpp la tax ñu nguufaanu ci saa si Ousmane Sonko benoone ñu koy yóbbu mu ngi ci le témoin le témoin tamit xëy ak ñun ak chroniqueur bi di Eric Zemmour mi xamle yàggut ne Emmanuel Macron moom moo teg pression njiitu réew Macky Sall national xamal ko ne libéral Ousmane euh, Sonko googule chroniqueur mu ngi ko xamle ci débat euh, télévisé ci ab télévision ba ne ca euh, France turbine dikkaat ak ñun ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak capitaine Omar Touré ma tekki ndombol tànkam ci gendarmerie bokk na ci la mu xamle moo ne daal sañ-sañam ak ak ak yelleefam dañ ko salfañe tax mu démissionné ca gendarmerie ba bokk na ci keroog bu muy déglu Adji Sarr aji ne na ko tonton loolee tamit euh, capitaine bi wax na ko euh, dellu soit na ci dossier googeek na mu demee mu ngi ci euh, tribune na yenn cabidilo di ne gannaaw yëngu-yëngal gi amoon ci mbeddu Ndakaaru ba kenn xàmmeetul capital bi Eh, dund gi nag tàmbaliwaat na door ci anam yu mucc ayib UCG di kuréel gi saytu tonni mbalit mi ci ndakaaru eh, soobu na ca ngir itamit eh, setalaat ndakaaru mu neex a xool ca Bignona ndaw ña itamit taxaw nañu tembe ngir lafa fa itamit jur jafe-jafe ca yoon ya ñu mun ko teggil askan wi lu toll ci juróom-ñaar fukki station service yoo xamante dañ ko toj rajax fii ci réew mi Eh, gannaaw fitna bi fi woon direct news ci xëtam bu njëkk eh, ci turu askan wi njiit réew Macky Sall yéex naa wax Ousmane Sonko yi tamit eh, wax na ci diggante bi taxaw seetlu gi direct news amal ci ñaari discours yi le mooy bu njiit réew Macky Sall ak i tamit bu Ousmane Sonko. yéen a bi di l' évidence ci xët l' ci xëtam bu njëkk euh, gannaaw ëmët euh, fitna gi fi jolli coronavirus gaa ngi ne kët ne jonn bokk na ci tamit euh, ni nguruk France taxawoo réew réewum Sénégal ak li fi jot a xew ci Afrique yéen a bi xëy ñu ko yëggee li ci jot a xew yi tamit jur na jafe-jafe ci APR. Euh, foofee ca banlieue bu Ndakaaru yéen a kabi libération ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal euh, lu waaju ci tamit euh, la xew ca camp militaire bu Barom Diop ca Louga li xew ci kilifa Kone ak woto gañ fa jot a taal jëppët yéen kabi na ci euh, xëy tamit di laajte ana lu te lu sooke ñu teg loxo Cheikh Diouf moomee nga xamante ne euh, ma nga jóge woon ca lala hôpital ñu dem jëli ko ci saasi euh, Bounama Sagna tollu ci fukkat ak ñeent te itamit mujjee amee gaañu gaañu ca binjoo na noone muy faatu. yenn kaa bi di Dakar Times mu ngi ñuy dégtal jafe-jafe ci wàllu politique eh, la mu jur ci eh, mbas mi di coronavirus ak àddina gi eh, bokk na ci ñaxtu yi fës nañu Dakar Beyrouth ak Lyon ak feneen ak feneen ba ca Québec ak N'Djamena na yenn bi di Dakar Times xëy duñu ko jàngatal la yenn bi suñu lamb mu ngi ñuy dégtal. lu yu ci euh, kaddu yi baw ci jawri ngi ñu denk wàllub yoon di maître Malick Sall rek yëkkati ko ca France 24 xam le ne jafe-jafe yeeg ñaxtu yi ñu gis euh, fan yi euh, gis na ca mbër yi nga xamante ne toog nañu ab diir gu ñu bëriwul ndax coronavirus bi kàddoom yooyu la nag mer merloo lool mbër yi Gris Bordeaux ne daañ ko clamé ci yoon Khadim Gadiaga wax na ca ne jor gi ñu dénk wàllub yoon joxu leen cër eh, bokk na ci tamit eh, Konaté ne Malick Sall mile dafa war a tekki ndombo